multidimensionnel et exceptionnel. Euh, en parler de lui, c'est un peu difficile quand même, mais on va essayer de faire, euh, soit ce peu, mais faire de telle sorte que dire la vérité sur lui. Mhm. Vous avez eu à côtoyer l'homme Oui, j'ai côtoyé chez Anta Diop à partir de 1971 mm -hmm. par un ami mathématicien qui m'a fait comprendre, connaître Cheikh Anta Diop. Il s'appelait Mamadou Watt, c'était un prof de mathématiques. Depuis que j'ai connu l'homme, alors euh, je ne pouvais plus me départir de lui parce que ce qu'il me disait, ça me dépassait, si je peux dire euh, ça, mais ça m'avait vraiment ébloui et je ne pouvais plus me départir de ça. Tous les jours, je venais chez lui jusqu'à jusqu'au jour il m'a demandé de venir tous les vendredis. Euh, s'il est à Dakar, je viens le voir pour 15 minutes et on va parler de ce qu'il fait, ce qu'il sait et ce qu'il fait pour l'Afrique et la jeunesse africaine. Tout à fait. Et voilà, Monsieur Faye, pouvez-vous euh, revenir sur, sur, le parcours de Cheikh Anta Oui, pas Cheikh Anta, mm -hmm. comme je viens de le dire, que c'est un homme multidimensionnel. Mm -hmm. Son parcours est tellement large qu'on ne peut pas parler ça aujourd'hui. Bien sûr. Parce que c'est très, très, très large. Mm -hmm. Mais je peux parler un tout petit peu sur lui, mhm. surtout l'homme en question, Cheikh Anta Diop, mhm. avec ce qu'il a en lui, que beaucoup de gens ne comprennent pas, ne l'ignorent totalement. Il faut l'approcher vraiment comme je l'ai approché pour euh, détecter cette phase de Cheikh Anta Diop. On peut dire que c'est un homme, euh, je n'ose pas dire qu'un homme euh, religieux, mais il a quelque chose que je n'ose pas dire à cause de l'entendement des Sénégalais. Ils sont tellement susceptibles que si je disais ce que je connais exactement sur lui, on allait me dire que oui, je, tu veux le déifier. Et ça, ça ne fait pas partie de mes intentions, mm -hmm. mais je veux le montrer simplement euh, les Sénégalais qui l'ont vu naître et l'éduquer, que vous avez formé un homme exceptionnel euh, au niveau mondial. Mmh. D'accord. Euh, euh, L'Afrique est le berceau de l'humanité. Euh, Cheikh Anta Diop a su démontrer ça à travers euh, ses recherches. Et euh, du côté de l'Égypte, hein, euh, tout, ouais. il a fait savoir que l'homme noir hmm. donc, était... Le... Voilà, le premier homme sur terre. Et le premier homme sur terre. Donc ouais. l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Ouais. Euh, donc euh, il ne cessait de, de rehausser en quelque sorte euh, euh, la race noire. Et Cheikh Anta Diop a eu à le faire. Comment pouvez-vous nous euh, décrypter cela, Cheikh Anta Diop et la culture Cheikh Anta Diop mm -hmm. est un homme de culture. Ouais. De très haut niveau. je peux dire même que dans le monde entier, mm -hmm si on cherche un vrai homme de culture c'est Cheikh Anta Diop si on cherche un vrai scientifique c'est lui si on cherche un homme humble c'est lui il est tout ce que devait être un homme un être humain c'est un être humain il est humain au vrai sens du terme c'est Anta Diop sans lui l'homme n'allait pas connaître que nous sommes parents nous tous blancs jaunes noirs nous venons d'un seul homme sur terre donc nous sommes tous des parents et connaître cela peut pacifier l'humanité tout entière donc c'est à connaître et c'est à suivre et comprendre c'est Anta Diop pour faire en il a réuni tous les savants du monde qui ont des thèses contre ces thèses. Mais il a réussi à convaincre tous ceux qui sont venus en au Caire pour débattre sur l'antériorité de l'homme noir sur Terre et euh, il n'y a pas d'une part un monde blanc rationnel seul, auquel seul la vérité est accessible, et un monde noir fait de sensibilité et de réflexes de subordination. C'est contre cela que j'ai lutté toute ma vie. Ne venez pas me servir donc ces idées-là. C'est la preuve que vous n'avez pas lu. Et même, j'ai cité en plus Césaire, quand Césaire dit, ceux qui n'ont inventé ni la poudre, ni l'électricité, etc., etc., c'était aussi un peu une littérature de la même veine, malgré les prodiges poétiques de Césaire, ce magicien du verbe qui est extraordinaire, qui vous envoûte. Mais je n'étais pas d'accord avec le contenu. Et je l'ai dit et il m'a compris. Quand Nation Nègre est sorti, Césaire n'a pas hésité à dire que c'est une bonne nouvelle. Et Césaire a fait le tour du pari progressiste pour trouver, former une équipe, un comité pour défendre ce livre Tout le monde a fait le vide autour de lui, ce que j'ai écrit dans la préface de la dernière édition de Poche. Regardez-le. Dès que vous parlez de patrimoine culturel, la gauche occidentale et la droite se touchent. Et souvent la gauche est plus minable que la droite. Faites l'expérience. On vous accorde l'égalité abstraite, mais l'idée que des nègres aient pu connaître une promotion historique dans le passé leur est réfractaire. Ils sont réfractaires à cette idée. parce que leur formation intellectuelle tardivement acquise se situe à un niveau très superficiel, au niveau du cortex, au niveau de l'intellect. Mais la formation qu'ils ont reçue tous dans leur plus tendre enfance, euh, les, les clichés auxquels ils sont habitués dans leur environnement d'enfance, les caricatures et tout, comme je vous le montrais ici,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 Et vous, ne, vous croyez que si la vérité était palpable, on l'accepterait. Je suis revenu de ces illusions. Regardez la deuxième partie justement d'antériorité où j'ai répondu aux critiques. J'ai dû même ménager des intellectuels de gauche qui avaient un peu servi l'Afrique. Je pouvais les scier en deux, comme on dit. Et ils ont vu que je me suis arrêté à mi-chemin dans mon argumentation parce que c'était catastrophique. ainsi ginnaaw ba ñu seetaanee euh, euh, benn extrait boo xamante ne Cheikh Anta Diop mu ngi ci doon wax euh, mënuñoo wax ci Cheikh Anta Diop te duñu bañ a wax ci wolof gis nañ ne Cheikh Anta Diop li mu nekkoon savant yëpp monsieur Faye gis nañ ne nu mu attaché woon ci nga xamante ne mooy kàllaama wolof mhm. peut-être dinañ ko bëgg di wax ci français yooyu ak ñeneen ñi nga xamante ne duñu duñu comprendre suñu wolof mais Cheikh Anta je pense que ci langue yëpp lañ ko mën a utiliser pour nit ñi war ko xam comme ni ni nga ko waxee mhm. mu nekkoon koo xamante ne dafa attaché woon ci caada ah. caada suñu réew surtout ci lépp li nga xamante ne moom la doon euh, doxalee da ko ci mhm. doon boole ah. Ah, loolu lu yomb xam la ci nekkinam boo ko jegee rek di nga gis ne kii aada daf ko fulal mais lan moo tax mu fulal la aada moom dafa gis ni euh, aada ndekete mooy nit ku ne euh, xeet wu ne laa bëgg a wax sa aada moo lay wane bi mu seetee nag ku ci nekk ay aadaam ci àdduna bi ku ci xeet wu ne lan nga aada woo bi mu yurndoo sunu bos mu gis ne amul wenn wu ko ci gën amul hen wenn aussi aada wu gën sunu aada ndax lan mu ne sunu aada dafa am euh, reen reen bu xam ne dafa dëgër lool mu nekk seetlu ndax aada boo xam ne bii mu ngi wékku ci seetlu amul lenn loo xam ne yi ci àdduna dina ko të pour mu xam ko taxoon na ba xam ne euh, sunu aada ñun Afrique ci seetlu la aju mu daldi di ne kon mooy aada bi xam ne euh, reenam mooy science mm-hmm. ndax xeet woo xam ne wi sa kàllaama mu ngi ko aju ci seetlu seetlu moom mooy li xam ne moo saxal science donc moo xam-xam fu mu mënti doon xeet wu dul seetlu li ngay am ci xam-xam du bari taxoon na ba xam ne mu ne day ñëw fii pour jàngal ñu nees di mën a seetloo ci sunuy kàllaama dégg nañu sunuy làkk mais ni ñu ciy seetloo ñun seetlu yóbbuwuñu woon pour ñu xam ne moo gën a yomb ko ñu waxe ko ci beneen kàllaama loolu nag moo doon tànkam ci Sénégal fii ne fexe ba ñu wóolu ñu xam ñu ràññee bu baax ne sunuy làkk yi lépp la ëmb amul loo xam ne mënu koo ëmb jamono yooyu tubaab yi dañ doon wax ne ñun suñuy làkk ay vernaculaire la xaw ma nan lañu koy waxee mhm. waaye mënul ëmb science waaye bi mu ñëwee moom mu wane ne ñoom dong dong dong sax ñoo gën a mën a ëmb science parce que bi léegi fa ñu toll woon ci science bi léegi tubaab yi yeggaguñu fa te bu ñu jaarul ci ñun duñu fa mës a yegg mhm. waaw je pose euh, Babacar ak li mu wax yëpp ci wàllu science ak recherche ak xam-xam bi nga xamante ni am na ko. Hmm. nag bu ko Sénégal bu ñu ko appliqué woon tey du changé boobaa ak léegi. léegi kon raw nañu mës na ko wax. mës hmm. na bi mu waxee ne alors moom. Hmm. Euh, boo gisee élection bëggul nekk président de la république. Euh, ndax dafa bëgg a nekk rek ndaw réew mi. booba moom dafa namoon nekk Baye Fall. Baye Fallu lan Afrique ak. fi mu juddoo ba xam ne dina leen teg ci yoon woo xam ne wi bu fekkee ne jël nañu ko ñun bu ñu gëmoon ne bu ñu jënee sunuy làkk yi du mat fukki at ñu commence ñu tàmbalee gis lan mooy njëriñu jël sunuy làkk bu demee lu mat ñaar fukki at lu wóor la dañuy raw sax Europe loolu moom lu mu leeraloon la lu mu wane la te ku ko jege rek xam nga ne la muy wax lu mën a nekk. waaw ak colonisation bi nga xamante ne am na ba pare. waaw nga xamante ne jàngale nasaraan bi moom la ñuy koy def ci école yi. waaw loolu lan lañ mën a def ba mën a ba mën a jël suñu kàllaama wolof bi dugal ko nga xamante dañuy dañuy bàyyi kàllaama uh, nasaraan bi wala. loolu nama nama rek la li tubaab di mm. wax volonté. Mm. nama nama rek la. waaw président bii fi nekk. Mm-hmm. bu fekkoon ne. am na namba namba bu mel noonu. Mhm. lu yomb la. ci nan la koy defee. dañu koy décréter simplement ne école yi bu ci kenn jàngaleeti lii nañuy jàngale lii. loolu war naa mën a nekk. ah waaw mën na nekk parce que mm. dañu yaakaar ne mënut nekk waaye ñu déggul wolof ñu déggul tubaab ci Sénégal kenn xamul ni ñuy toll. Mm. ñu ngi dund ñu ngi am li ñëpp di am. Mm-hmm. ñenn ñi sax ñoom ñoo ëpp ne fuuf. ñi xam ne jàng nañu tubaab ba mm-hmm. am agrégation. Mm-hmm. te torox. dëgg kon bu fekkoon ne làng wi. Mhm. day tax nit bañ a torox. Mhm. kon ku jàng tubaab doo woon torox. te Serigne Mbuub mu ngi nii. Mhm. moom wolof la jëkk a dégg. amaana dégg na arab mais taxut mu am li mu am li mu am xelu nit ku ñuul bi mu yore moo tax mu mën ko am. ndax ci seetlu la moom buy wax sax nga gis ne seetlukat bu mag la. sunu marchand ambulant yi ak sunu rappeur yi. ñun dañu defoon ne wolof kenn mënu ko wax ba mu neexee ni koy rappeurs yi di waxee te comme neex na ci déggin rek wóor na ne ne baax na ci defin defin boobu nañu ci dugg rek jëfe ko dong moo ñu dese mais du loo xam ne lii affaire jinne la tubaab euh, bu yàggul rek euh, maa ngi fàttaliku ko mhm. ay 1955 ak yooyu booba ay siin rawuñu ñu fen mais bi ñu jëlee seen làkk def ne lépp lu ñu am léegi tur woowu ñoom ñoo koy joxal seen bopp pièce bu mu mën di doon fànn boo xam ne bii jël nga ko ñu wut ci tur ci seen làkk matul téeméeri at ñu ngi nii ci kaw ñoo raw sax tubaab yi ndax ci ak asamaan si ñoo leen ci raw ci suuf si fii aussi ñoo leen ci raw ba ku demoon benn ne euh, nit dina dem bay lebal Amérique alal dañu naan loolu danga nga dof te mu ngi nii de am waaye ñoo leen di lebal ñoo leen di defal lu ne wàllu science rawatuñu leen ci dara donc ñun fi mu nekk nii bu ñu yërëmoon xale yi ñëw ëllëg bala ñuy am jur fukki at ñuy defal seen bopp lépp daa mel ni Cheikh Anta Diop waxoon na ko tamit ci li nga xamante ne moom mooy lépp lu ñu war a mën a defar rek mu bàyyi ko suñu réew loolu bokk na ci li mën a développer Afrique muy lu wér mm-hmm. xam nga euh, tubaab yi mm-hmm. ba ñu xamee li nekk Afrique ñu def seen idéologie boobu ne la terre promise loolu waxin la mais ñun ñii xam ne ñu ngi dund tey jamono jii gis nañu la terre promise ci àdduna bi yëpp Afrique la Afrique rek la yàlla def ay euh, euh, euh, xeetu koom-koom yu ne ci biir suuf si yoo xam ne amul ci benn continent continent bii li mu ëmb kenn xamul nu mu toll en 82 Cheikh Anta dafa ni euh, zircon nit ñi xamaguñu ko mais bu ñu ko xamoon Sénégal amul benn pays bu leen ëpp jurkon ci àdduna waaye gis nga Macky Sall bi mu yéegee en 2013 donc benn at rek la toog songu zircon bi ba euh, mbas mi ñëw fii benn sénégalais warul woon génn benn dërëm moom moo waroon génn lépp jox ku nekk fa nga nekk ndax li mu jot a gas ci zircon bi mat na juróom-ñeenti at te alal boobu mu ci toll ñemewul wax sax nit ñi ñaata la kon la Cheikh Anta waxoon moo nekk noonu ñi koy gas dàq ñu ñoo gas euh, mën-mën nit a koy def du matériel mooy def mën-mën mais dañu koy defar ñi koy defar ñépp xaaruñu ci kenn ku bëgg jënd boo ñu ñëw ñu jaay la seen appareil yi ngeen yore tey dangeen ko jënd defaru leen ko lépp noonu la mel lépp loo jënd pour jëfandikoo ko xamal noo koy jëfandikoo rek nga daal di tegu ci yoon wi donc loolu bu ñu nekkee naan tubaab bi nangam walla anglais bi nangam dañuy nax sunu bopp di gën di nax sunu bopp ba ñoom ñu man ñu noot nooteelu xel nag moo gën a bon te ñu ñu ciy bëgg a noot nooteelu xel bu ñu ci nootee ba abadan dootuñu leen rëcc nañu góorgóorlu moytu loolu ndax suñu xale yi konkuur euh, yi ñuy def ci defar dara gis nañu ko prix chef de l'État mhm. pour créer quelque chose xale yi li ñuy créer kan moo xalaatoon ne mën nañu ko mais jëlewuñu ko ci tubaab ji ci làkk yii ñu yor lañu ko defaree. Mhm. nee dem nga sax ba ne bu doon coupe du monde wala coupe d'Afrique Cheikh Anta Diop jël na ko moo ko jëkk a jël ci nit ku ko njëkk jël ci àdduna bi mhm. euh, coupe coupe du monde. Mhm. Cheikh Anta daf ko jël. ba pare ñëwaat jël coupe d'Afrique. xale yi doog a tegu ci yoon wi ñëw nag ñaata at euh, après Cheikh Anta Diop 74 ba mille vingt 2022. Euh, xale yi doog a jël coupe fo coupe football mm. fo rek mm. mais comme jël nañu bu fo nag nañu jël bu xam-xam bi te mën nañu ko jël mm. jëloon na ko mais nekkatu fi ñi fi ne mën nañu jël coupe boobu yóbbu Afrique ak senegal yëpp ca kaw a kaw a kaw xale yi moom gëm naa ne ku leen jiite teg leen ci yoonu génne xam-xam yàlla xam na ne dinañ ko génn mhm. dara doxul seen diggante ak lool ndax jox nañ gëdd bu war Cheikh Anta Diop ci biir Sénégal déedéet waa Sénégal dañu iññaan mhm. li ma wax sànq moo di ne bu ñu iñaanul woon du ñu gënaatle Cheikh Anta ak dara Senghor mhm. koy tudd fii wax dëgg yàlla daf may mitti ndax Senghor li mu ñu mittital moo raw bu tubaab bi ndax moom ci ñun la bokk ba pare mittalal mittatal ñu comme bu tubaab bi donc moo raw tubaab bi ci mbon ci soxor ci xeetam Senghor moo gën a soxor tubaab yi ci xeetam tubaab yi sax manees naa wax ne ba ñu soppeekoo ak léegi soppeeku dafa am lu mu waral soppeeku yemul ne ci der wi rek nga soppeeku da soppeeku ba ci biir dangay soppeeku ba ci yax yi Cheikh Anta wane na ni euh, ñun ak tubaab yi sax sunuy loxo dañu gàtt euh, mais yu tubaab yi dañu gën a gudd mhm. li ko gën a guddal mhm. mooy mettit bi leen sedd doon teg mhm. pendant cent mille moo tax soppeeku bii ñu soppeeku amaana sax ci loolu la seen ak coxor jóge sinon gisuma lu tax ñu nekk nit comme ñun ñu bañ ñu ba mel ni ñoom xamuñu ne ndax ñun ay bàyyi ma ñu am déet ndax golo ku ko gis xàmmee kook nit bu fekkee ne nit nga mais boo tegee ne nit golo la day fekk yow sa gis-gis ci golo la yem donc sa xel xelu golo la mm-hmm. tubaab yi bu ñu yaakaaree ne ñun mm-hmm. nekkuñu nit comme ñoom mm-hmm. c'est parce que dañu nitewul xam nga wolof nee na nit nitay garabam man loolu dama ko weddi dama ne nit nite mooy garabam boo xesee nite foo nekk di nga mën na nekk ak ñooñu. Mhm. boo nekkee ci tubaab yi di mën na nekk ak ñoom nekk ak chinois mën na nekk ak ñoom mën a nekk ak africain yi. Mhm. donc nite moom la nit ku ne war a ñaan am moom la ñëpp war a góorlu ba ñu am ko nite donc mooy dimbali nit ku ne. Mhm. ñu jeexalee ak euh, li nga xamante ne mooy jàngale Cheikh Anta euh, am na yoo xamante ne peut-être euh, réew mi mënoon na ko bañ a tëddee jamono bi bu fekkoon jël nañ ci yenn. nak nag dina indi ci saafara. buñ mhm. ko appliqué woon nii. waaw yéen tàggatoo ci jàngaleem ni mu mën a servir ab mhm. nation. yéwén yéwén na ci lool. Mhm. Senghor ci boppam. Abdou Diouf mii mu ngi nii deewagul. ku ci nekk Cheikh Anta wax na la ne bindal rek ne nangu nga ne ma dem def benn anga ab ab ab ab kii euh, euh, euh, mbaar ca. géeju mbuur fële may manq ci géej gi yóbbu ko def usine bi ca Thiès di lang loxol géej gi di ci génne courant ak yeneen dérivé yu baree bari yoo xam ne ñu ngi koy xaar ci pétrole ba sax waaye war na mën a génn ci géej gi mais sengor tontuwu ko ba Abdou Diouf ñëwee mu waxaat ko la même chose ba man mii ma ne ko mais euh, góor gi li mbay am na alal nee nañu du jeex te nga jege ko mu jox la alal boobu nga def li nga bëgg a def mu ne déedéet du loolu man du ma tooñkat te bëgguma kenn jéppi ma ci wàllu tooñ ndax bu fekkoon ne alal rek la mën naa ko am bu yomb yomb yomb yomb ci àdduna bi yëpp bu ma leen laajee alal ak nu mu manti toll dinañ ma ko indil bu gaaw waaye man ndigal laay xaar ndigal li mooy ne lan sengoor na bind rek ne nangu naa ni nga def sa mbaar moomu ci wetu géeju mbuur loo man defal mu teg ko ci ne bu boobaa nga woo réew yi xam ne ñoo nekkoon euh, euh, euh, Sénégal bi bu njëkk nga wax leen ne dinañ leen jox courant du ñu fay dara du ñu fay dara te ngeen booloo nekk benn réew man ma nekk seen Baay Faal waaye Senghor tontuwu ko Abdou bëggoon na ko tontu waaye ñemewu ko tontu te bu ñu ko laajee fi mu nekk nii muy dund bala muy dee dina la wax lu tax tontuwul lettre boobu moo dina ñemewu ko woon tudd ndax tubaab bi mhm. bu ko tontu woon ñu jële ko fi mhm. loolu dong moo mhm. euh, ko mais bañul Cheikh bu dul woon moom Cheikh Anta du mës a jàngale ci université de Dakar kan moom Abdou Diouf dafa yéeg rek mu ne ah, euh, Cheikh ñi naan mënoo jàngale ci université bi man ñemewuma ko wax parce que xam naa ne war nga caa jàngale man nga cee jàngale comme ñoo moom réew mi nag bu dee ñëwee sax man bokk naa ci ñuy dee waaye il faut nga dem jàngale ji ci université mu jàngale fa ñeenti ak waaye taalibeem yi mu jot a jàngal ci université bii de ñu ngi fi nañ leen jege laaj leen lan la leen Cheikh Anta jàngal ndax lu bon la am lu baax la d'accord en tout cas muy muy lu am solo di la di la jaajëfal rek bu baax ci sa disponibilité euh, di Babacar Faye nekkoon disciple Cheikh Anta Diop ci waxtaan bu am solo bi nga xamante ne indil nañu ko ñu ñëw ci beneen pàcc émission cercle des arts ba tey du divertissement aussi dans Cercle des Arts nous allons essayer de nous détendre un peu et donc euh, ñu war a dalal ab benn artiste boo xamante ne ndaw la dugg ci scène musicale bi di Dieyla Dieyla ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay.